Mahu ak Dieynaba batal kagn lañu wara a am banex fi nga xamanteni modi sen negu sey ci biir keur ku nga xamanteni ni Mariam Sall fi ak Mariam Sall mu ci biir keur gi japp naa ne ñoom ñaar ñi duñ mo sam banex fi nga xamanteni ni sen biir negu sey ndax nak Mariam Sall mi man nañ ne ànduloon ci li nga xamanteni ni sey bi waye ba legi mayul jamm ki nga xamanteni modi moo batal ndax ay jafe-jafe yu metti lay dund fi nga xamanteni modi ci biir keur gu nu mel ki nga xamanteni ni moy yaay Mariam euh, Sall ñew na ci keur gi di mam waye nak mu taxawee bon exemple maanaam wa wuuf njaboot gi yëpp war na ne sëy maanaam ñaan ñu bëggante rek ñoo war a mën a sëy amul géer amul géwal amul ñeeño amul tëgg waaye nag gis nañ ne deful loolu li mu taxaw mooy sama deret yi kenn du ko rax moom lay wax ki nga xamante ni moo di Mariam Sall kon nag yekk na ko lu mel ni xamee ginnaaw bi nga xamante ni Mariam Sall seetaan na ba sëy bi daal di am moom moomee nag li mu fas yéene def nag mooy toog si biir kër gi sëy bi ne sëy bi daal force daal day war dafa a tas ci diggante ki nga xamante nii nag moo di maxu di sëtam ak ki nga xamante ni moo di Dieynaba Tall mais loolu yaakaar naa ne erreur du ko gën a rëy war ngaa mën a doxalee beneen doxalin boo xamante ni kenn du la si yedd waaye tamit kenn du la si jéppi te lii yaakaar naa ne bu continuer tamit ki nga xamante a seetaan si ni moo ni mel mais est tamit ki nga xamante ni moo di maxu wartu jël li nga xamante moo di ay responsabilité génn fi nga xamante ni moo di kër papam de luye ji feneen parce que jaw yaakaar naa ne bu boobaa loolu mooy nekk li nga xamante moo di jàmm ji mais tant que ñu ngi si biir kër googu noonu yaakaar naa ne duñ am jàmm mukk si diggante ba ak nga xamante moo di soxnaam mais tamit fi nga xamante ni taxaw na teg na fa tànkam foofu mooy fi nga xamante ni mooy fu baax ndax soxna nag boo ko tegee jëlee ko kër baam indi ko sa kër baay wala indi ko sa kër lépp loo xamante ni dal na si kawam yaa ko war a protéger yaa ko war a aar ba nga xamante ni du gaañu mukk jàpp naa tamit góor gu nekk bu amee soxna noonu képp nga war a mën a taxawee quoi moo xam sa papp di ko xas sa yaay sa yaay di ko xas sa maam di ko xas danga ko war défendre toujours parce que moom yaayam ak papam kenn nekkul fa kon yow mi nga xamante yaa ko fi indi ngeen bëggandoon indi ko si biir kër gi yaa ko mën a défendre sa kanamu famille